di gunal day garam di way ak sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina na yaa nu jox say xi bamba jaara ma jaara jaaratullaahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi may soxna jaara rahmatullahi taala wa barakaatu moo ngi nuyu mbokk yi teewu ci jataay bi di siyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp xam naa buñ ko tegee ci loxol Serigne Moustapha Moussa tàmbale ko ci moom mu dem ba làmb bokk yi ci jataay bi yëpp di ndokkeel bu baax njabootug sëriñ Bachiru gi nga xam ne ñoo ñoo taxawal guddi gi te daayira alfulkul mashxuun di sëti sëriñ Bachiru wuuti ci wu ñépp amal ko ci organisation bu mat bu am solo noo leen di sant bu baax leen ndokkeel di ñaan sunu borom gën leen gën leen cee dolli tawfiq bu ko defee jataay bii ne ko sëñ Muxtaar Seck waxee daanaka dañuy ubbil sëñ Ahmadu sëñ Ahmadu Daarul Muxti ñëpp xam ko ci xam-xam ko ci man koo leeral macha allah waaye xam ko ci mu di murit nag mu di murit kon mooy waxtaane téereb sëñ Bachir bi ñu wax menanul baaxil qadim fii siirati Cheikhil Xadim sëñ Bachir bind ko ci dunduk sëriñ bi waaye nit ki bala ngaa dugg ci mbindam xam xam ko baax na ci kon dañ ko ubbil mel na ñuy wax tarajumatul muallif xamal xam la sëñ Bachir ma bind téere boobu mooy kan jox sëñ Ahmadu mu soog a dugg ci téere bi ndax euh, nit ki xam xam histoire am tuuti xam siiraam dana tax boo duggee ci mbindam ci misaal sëñ sëñ bu mag bi boo jógoon rek dem ci mbindam te xamoo sëñ bi fi mu jaar siiram taarixam xam nga léeg-léeg nga gis mu naan katabtu fil baxri katabtu fil baxri bu baax boo xamutoon histoire sëñ bi da nga naan moom katabtu fil baxri mooy lan bind naa ko ci géej gi waaye boo xamee histoire ba nga xam ne bu ne katabtu fil baxri gabon la jubloo wax mooy bi ko tubaab bi yóbbee ci alxaybatul baxriya loolu laay misaale am solo gu xam jëmmi ki bind dana la dimbali ci nga xam mbind ma kon ci xam la sëñ Bachiru ni ko ñu bari xame mi ngi ganee àdduna dëkk bu ñu wax Gàlleyal Gàlleyal ci Njàmbur la bokk ci région Louga ay tool la woon bokk ci dëkk bu mag bi ñuy wax kokki lan moo waral loolu booba soxna xari jang maamam mi wayjuru soxna Fatim madu maam foofa la nekk maami sëñ ba Bachir yi ne foofa ñi jur soxna Fatim madu maam ay juram sëñ bi bi muy dem so soxna Fatima du maam sëñ Bachirou ngi ci moom te feeñagut sëñ Bachirou yabal sëñ bu mag bi yabal ko ca ndayam ngir taxawaay ba cay war loolu moo indi te booba ndayam maga foofa loolu moo indi sëñ Bachirou ganee àdduna gàlleyam ay weer rek la sëñtu Tuubaa am ci géej gi sëñ Mat Lamin Jóob Dagana daf ne jumaada thaniya aw shahbaan maamu koor wala barax bu dafa ne maamu koor nag moo gën a lëng ci la sëñ Bachiru gane àdduna sëñ bu mag bi ay at bi mu amee ay weer ci géej gi la yónnee benn leetar ne bu ganee àdduna nañ ko tuddee Muhammadul Bachir Muhammadul Bachir al Bachir nag ci arab mooy ki indi xibaaru mbég bi ñëw na ci alquran ci ci chance boobu gis nga sayyiduna Yaqub ba ko doomam Yuusuf réeree ay at mu ànd ak metit di jooy ba ay gëtam muuru ba ñu gisee yuusuf ca misra yuusuf ka mu yabaloon jox ko mbuuma nga xam ne ca la sayiduna yaqub war a tàggoog njàqare la kooku la al quran tudde al bashir kay bégal si sayiduna yaqub ci feeñuk yuusuf fa lamma an jaa al bashiru alqaahu ala wajhihi fartadda basira kon sëñ bashiru dafa mel na mi ngi bégle ci ci ci dellusi sëriñ bi waaye ci amam amoon la muy wut sëñ Tuubaa wax na itam ca leetar ba bu bis baa bisub tudd ma nañ ma lebalub gàtt danaa dellu si te bu ma dell see luñ ma lebal danaa ko fay ci la ci lañ ko ci la loolu mooy aju ci gane àdduna ak Cheikh Mouhamadul Bachir ba mu toll ci matadal jàng fekk na lu ko jiitu bi sëñ Tuubaa amee ay at ci géej gi sëñ ma baabu Géey ñu xam mbokkum sëñ Adama Géey fekk na mu am àddee ju muy yónnee sëriñ bi ca géej ga ab kaamil alquran bokk ca ak it di ko xamal génn àdduna ak sëriñ aadama Gueye moom mu nga xam ne ñu bari eh, xam nañ ne wala dégg nañ ne moo jëkk a jébbalu ci sëriñ bi ba kaamil ba demee sëñ bi wax ne nañu delloo siwaat kaamil bi ci réew mi Sénégal ba Mouhamadul Bachir matee dal nañ ko ci dalal kon lépp mi ngi yittewoo mbirum Serigne Bachiru kaamil boobu ci lañ ci lañ dalal Cheikh Mamadou Bachir ci la jànge bi mu demee ba war a ci jàng sëñ daam ah, sëñ daam Abdourahman moo ko dalal alquran ci ndigalul maam Thierno mi Serigne Touba bàyyi woon ak njaboot gi sëñ daam nga xam ne moom mbootum alquran dafa mel ne moom la ko sëñ Touba dénkoon gis nga sëñ Moussa Ka ca way wa moo saxal Cheikhu Abdou Daaru Alimin jox ko mbootum kuy jàng fi alquran sëñ daam moom moo jàngal sëñ Bachiru alquran moo ko tàmbalil ba suratul fath ni ko ñëpp xame bi sëñ bi ñëwee laaj ko mu ne ko laqad radiyallahu anil mu'minin mooy bindam bi mu mujj a jàng ne sëñ Moussa Ka ne Bamba dal dina teqet na ñëpp bég leen gërëm nañ ma ci gërëm nañ ma ci dem gi ma ñëw gërëm leen kon seere woon na sëñ Tuubaa ca dem nga al Bachir seerewaat ko ci eh, ngërëmul yàlla loolu nga xam ne ba saxaaba ya jaayantee ca salhu day Hudaybiya ca la ko sunu borom wàcce woon jàng alquran gannaaw bi nag sëñ bi jox na ko ku ñu wax sëriñ Ibra Bint Silla gannaaw bi mu jox ko sëñ Mbay Jaxate suufi bu mag boobu ñëpp xam nga xam ne moo jàngale sëriñ Bachiru alquran ba jàng ba bind ay kaamil boo demee ci sëriñ Moustapha Abdourahman loo téere bi mu bind ci sëñ Bachiru wala lim ci bind wax na ne bi moom sëñ Moustapha dafa ne bi ma jàngee ci sëñ Mor Mbay Siise ba bind kaamil andil ko sëñ Bachiru dafa bëgg ne ma bindal naa Serigne Touba kaamil yu bari kon jàng na ba bind kaamil jàng tajwid tajwid gi nga xam ne mooy mottale alquran ci naar bu ñuy wax Ahmadu bnul Hasan ad-Daymaani jàngal na tajwid sëñ Bachiru naar boobu ku maanoon alquran la bu masaan jàng alquran ci kanamu Serigne Touba bu noppee sëñ bi daf naan hakada hakada unzil nii la alquran wàcce kooku moo jàngal Serigne Bachiru tajwid ba noppee nag dugg ci njàngum xam sëriñ Touba moo ko tàmbalil jàngam xam-xamam tàmbalil ko yaram mu jàng ci moom ba eh, yitte yi gën a jàtt sëriñ bi musta am jot waaye ñàkk jot gi gën a yokk sëñ Bachirou xam ne lim soxla ci xam-xam mel na ne dem gànnaar nag laxas wuti ko moo ko moo ko koy may mu laxas dem gànnaar ngir jàngi waaye diir bu gàtt la fa am sëriñ Touba yabal ay ndaw ñu jëli ko ñu jëli ko ba mu dellusee mu laaj ko loo wuti woon mu ne ko xam-xam mu xamal ko ne ko toogal fii warlul naa la ko li nga ci war a xam waaye warlu gi sëñ Tuubaa nag warlul xam-xam moom teewut dalay teg ci yoon xam nga waxoon na ca leetar ba mu bindoon ne maa ngi digal murid yëpp ñu aju ci man góor ak jigéen nañ jàngi ba mu ne takallaftu lakum laakin bi tawaalifa warlul naa leen ko waaye ci ay téere yu may bind nag ngir ngeen mën caa jànge seen diine kon ba mu nekk warlul naa ko it da koy tegaat ci yoon nag mu jàngi ni ko ñëpp defee sëñ Bachirou yi waaye sunu boroom defal ko tawfiq la ko sañ bi waxoon bi mu dellusee ci sëriñ bi fekk sëñ Touba naar yi dañ fay baagante ñañ waroon a fekk gànnaar ñuy jàngale ñoom ñëpp di fekk si sëriñ Touba njaareem boroom xam-xam bu ne gis nga sëñ Abdou Samad moom sëñ Abdul Qadir xasida googu mu def bi ci ci minan maa ngi ko cay wax in gaadara al bayta faqihun zairu makaanahu ata adibun shaa'iru nee na saabu boroom xam-xamu ku giiju ci wàllu feq ñëwee siyaare si ba dem fañ ko dalaloon dañ fay dal di dalal ba adib bu mën a way kon fànni xam-xam yépp lu jubloo wax na rek ñu ngi dajaloo ci Serigne Touba bi Serigne Touba nekk nekkee njaareem sëñ Bachir kon amutoon jenn yitte judul topp ndigalul sëriñ bi ak sàkku xam-xam loolu moo doon moo doon yitteem am njàngam nag jërul ñu ciy sori ndax defe naa xam-xamam tegtale nam jàngam kon fii la jaar la jaar moom daanaka du jar ñu fiy sori sëñ Moustapha Abdourahmane Lo moom mu wax léegi loolu mu bind ci sëñ Bachir tudde ko Muhammadul Bachir shaxsiyatun xaalida daf caa wax ne daf ca leeral xam-xamu sëñ Bachir te sëñ Moustapha boroom xam-xam la dafa ne fa kaana yubaari fi lfiqhi lislaami saxnuunan wabna alqayim wabna alqaasim nee na sëñ Bachir daal buñ koy gam-gam leel ci wàllu fiq maanaam dafa ne matière da wane ne matière bu ne ka raw kañ jàpp ne moo ca raw la ñuy tollool ak sëñ Bachir mu ne bu dee ci fiq sax noonu lañ koy tollooleen sax noonu am na ci boroom xam ñoo xam ne dañoo wax ne mooy Abdou Salam sax noonu xam-xamu soowu jant ci sax noonu la yem ñu ne sëñ Bachir Moussa ne sax noonu lañ koy tollool wala wab Ibnul Qayyim wala Ibnul Rushd ñooñu nga xam ne wala Ibnul Qasim boog ñooñu nga xam ne ku xam fiq da nga dégg seeni tur ba tàyyi ci wàllu xam-xam kon mu ne bu dee ci wàllu tawxiid abul xasan al ashari rek la ñuy tollool ak sëñ Bachir moom it xam-xam matière boobu tawxiid daanaka moo ca raw mu ne bu dee ci tasawuf junayde ñoom ñaar yooyu defe naa miin nañu téere yi ñu bind téere yi wane na ci ah, pas-pasub ashari yi ak eh, tasawufu junayd gis nga ci ibnul ashir noonu la ko waxee nga xam ne dafa ne fii aqdil ashari wa fiqhi maliki wa fi tariqati junayd salik kon ñoom ñaar ñooñu ñu kawe woon mu ne bi bu ci naxwu grammaire arab siiba woyhi la ñuy gam-gam leeg sëñ Bachir dem nañ ba ku géeju ci xam-xamu naxwu sax dan naan ko siiba woyhi zamani yaay siiba woyhi sa jamono foofu la tolloon loolu la sëñ Bachir wax balaaxa mu ne arut arut alxalilu bnu ahmad nga xam ne daat yi ñuy bind xasida yi sax moom lañ ko moomale albuxurul xaliliya noonu la ci tolloon nee na sëñ Bachir kooku lañ koy tëkkaleel ci balaaxa bayaan ak badia al maani abdul qahir al jurjaani moom itam ku ci ku ci ku ci taarix mu ne ibnu xaldun noonu la ko toppee ci usul luga mantiq géographe falsafa ni ko sëñ Maxtaar doon waxee léegi rek ba ci ba ci falsafa mu ne ibnu sina lañ ko ci tëkkaleel matière yëpp ba ci xam-xamu médecine médecine sëñ Bachir ku ko xamoon la gis nga dégg naa ci sëñ Muxtaar Diop tiib mu ne bi mu yoree dongo yi di leen tërbiya ci xam wàllu wérug yaram na dafi def jamonoy lolli jamonoy lolli sëñ Bachiru day yónnee Casamance ñu dënd jëndali ko karité karité bu bari nga xam ne da leen di toggal ab laax di ci def karité gi nee na bu cooroon ñëwee ba tàngoor wi dugg mu yónnee tiir tiir la ñuy boo rek laax bi boobaa ne leen ndax jamonoy sàdd karité moo gën ci wérug yaram jamonoy tàngoor tiir ca gën loolu sëñ Moxtaar Diop tiit mi fekkee dégg naa mu netti loolu loolu li wane sëñ Bachir kon daal xam-xam yéeme woon na ca lool kon gis nga eh, Mouhamad Ali ibn Mouhamad mi ngi koy wax wana ne bu ñu ci sëñ Bachiru maanaam dañuy maanaam waxtaan wu neex wi ñuy waxtaanee mu ne fànn bu jël rek mën nañ caa am waxtaan wu neex fa nartaxu fi riyaad alfiqhi tawran wa tawran fi wasaayat ni alxakimi وفي وأحوال الجني نروم حينا وتخريج الصحيح من السقيم وفي كل العلوم له مجال يجول به به أخو القلب السليم mi ne matière bu ne rek daanañ ca xuus di ca waxtaan ak sëñ Bachir boroom xol bu sell bi kon ca ñoom ñëpp di wax boroomi xam-xam la woon moo tax sëñ Moustapha Bachirou am na téere bu mu bind ci sëñ Bachirou ci wolof la ko def wax na ne bu doon misaal ci sëñ Bachirou àgg ci wàllu diplôme dafa naan agrégation la fa àgg moom diplôme boobu la jox sëñ Bachirou mu ne jamonoy colonialiste yi nee na am na téere yu sëñ Bachirou commandé woon Égypte nee na ba mu ñëwee wàcc Dakar tubaab yi gis téere yeeg niveau bu kawe bi dañoo jaaxle ne téere bii kan moo war a àgg ci niveau bu mu ko mën a bu mu ko mën a liire nee tubaab yi dañoo téye téere ya bañ leen sëñ Bachirou ko moom dañoo téye téere ya woolu ko mu ñëw ndakaar ñu boole ko ay professeur ay fan ñu koy nattu ba xam ndax ak niveau àgg na ci mën a soxla téere yi ba mën ay fan xam ne niveau mu àgg na ci ñu jox koy téere bi sëñ ba sëñ Moussa teg ca ne téere ba mi ngi gis bibliothèque boobu ci daaru minam nee na mi ngi mu denc maanaam kon gannaaw bu jàngee ba xam taxoon ak sëriñ Touba der bu yàgg ci Minanul Baaxil Xadim am na fu muy waxe ne ñaar fukki at ak juróom yu mu jëm yëpp taxoon ak moom booba day wax ne sëñ tubaa jaamu yàllay guddeem ci at yi ma taqoog moom bind ca ëppoon ak jàng alquran mu teg ca wax nañ ma ne nag la ko jiitu julli julli mu ëppoon jaamu yàllay guddeem kon loolu li muy wane rek gis nga ca gànnaar nettali boobu ma doon nettali ne sëñ bi mas na faa tawat tawat ju metti am ku ñu sant mu def xasida def tawassul ngir ñaanal sëñ tubaa tawat ji wér mu ne bañ ko bindee man mii lañ ca jox benn nusxa benn copie ma yóbbul ko ko teg ca ne ndax booba man waxtu wu ne mën naa koo gis muy guddi muy bëccëg mu ne gone laa koo xam ne booba waxtu wu ne mën naa koo gis muy ca gànnaar te booba mi ngi toll ci jàng alquran mu teg ca ne ba mu ñëwee jox ko xasida gi mu ne ma ku def lii ma ne ko diw mu ne man nee na tuub man sama mbir mi ngi ci loxol yàlla nga xam ne tawaat sax du nangu kenn ñaanal ko mu sëñ kon loolu li ma bëgg a wax rek mooy ku yàgg ak sëriñ Tuubaa kon daanaka bu ñu xaajoon dunduk sëriñ bu mag bi ñetti xaaj xaaj bu mujj bi lépp moom sëñ Bachiru da koo taqoo moom moo tax sëñ Abdou Lahad radiyallahu anhu seere woon ne bu amoon kuy gëstu mbirum sëñ Touba jóge fa sori dëkkut ci réew maanaam ñëw Sénégal xamul dara ci sëñ Touba di gëstu si mu ne bu ma sañoon sañ Bachiru lay jëkk a dajal ndax moo ko doy ci mën a xamle sëñ Touba kon noonu la noonu la taqoo woon ak sëriñ bi bi mu demee ba jàng ba war a euh, taxawal àddunaam ci la doon a jàmbaar ñu doon a jàmbaar xam-xam ni la doon jàmbaar yi liggéey taxawal lu baree bari ci ci àdduna fekk sëñ bi sëñ bi woolu woon na ko njaare mit boole kook sëñ Modou Moustapha junju leen ñu ànd saytu yoonu murit sëñ Basiru taxawaay boobu la amoon ci yoonu murit nekk ci wetu sëñ Moustapha taxawaay fa taxawaay boo xam ne ba ci gannaaw sëriñ bi ci boo demee ci téeréb sëñ Moustapha Bachiru bi riwaayaat yi bari na waaye sëñ Moustapha lim saxal mooy jamono yi sëñ bi di dellu ci boroom ci njaareem sëñ Bachiru la fa fekk ndax fekk mu ñëw njaareem dal nekk sëñ Moxtaar Silla di mbokkam sëñ Moxtaar Silla bëgg nekk sëñ Moxtaar xamal ko ne ko fan sëriñ bi kenn déggul sëriñ bi fan yi yëpp nee na mu ne ko nañ dem wan ko néeg bi mu ko mujjee gise bi ñu ko gisee sëñ bi ci néeg boobu nee na ba ñu àggee néeg ba dafa mel ne fekk mu tëju sëñ bi dajjilu néeg ba ba mu duggee fekk sëriñ bi tëdd ci jaan dellu ci ba nee na mu jël otoom dem ñaaxin ah jëli sëñ Modou Moustapha ñëw ñëw ñëw njaareem nettali boobu la sëñ saxal moom ci téeréem donte nag nettali yi bari na am na ñeneen ñu nettali waaye li wér moom li wér nga xam ne ñëpp dëppoon nañ ci mooy sëñ bi bi mu delloo ci boroom ci njaareem sëñ Modou Moustapha ba mu ñëwee bañ waajal ko ba noppi sëñ ba Bachiru la yabal mu ànd ak ña mu àndal indi ko tuubaa sëñ Modou mu sëñ Bachirou moo jiite yoonu moom andi sëriñ bi Touba ànd ak sëñ Modou Moustapha nag liggéey bi def ci loo xam ne lu làmmiñ mën a tudd la am loo xam làmmiñ mën a ko tudd taxawu taxawu ko ci wet gu nekk gis nga ca ca ca marché sëñ Malick Dieng ba mu ne ba magi bas siiw na ci réewi Sénégal muy sëñ Modou Moustapha ci turu am di Moustapha kon noonu la gis sëñ sëñ Muntaqa am na xasida gum defoon sëñ Bachirou da ko tuddee xaayidul jund la ko tuddee mooy capitaine capitaine bi sëñ Bachir mooy capitaine u euh, maanaam ka ci noonu la ko misaale ci yoonu morit mooy capitaine bi ngir taxawaay yu am solo yim fi yim fi taxaw kon noonu la taxawoo sëñ Modou Moustapha gannaaw fekke taxawoon naag moom njaboot gi miin ko sëñ Cheikh Gaynde Fatma di doomi ndeyam waaye ànd ak loolu lépp dafa tax moom sëñ Modou Moustapha la dem amaat ko ci sëriñ Mouhamadul Fadel taxawoo ko ci wet yépp ba gis nga sëñ Moustapha Bassirou ci téere boobu dafa ne da ko joxoon ndigal ne ko boo ma gisatut ku fi nekkal sëriñ Touba na nga ko topp loolu la joxoon digal kon taxawaay boobu la sëñ Bassirou am ci yoonu murit di jàmbaar nag taxawal lu bari ci ci ci Sénégal ci ci ci dëkk bi ay liggéey sañ ci dëkk yu baree baree bari umul xayri ca la bokk tayib ca la bokk nga xam na gannaaw sëñ Touba la leen jiitu sancoon na ca Pakacaar ci Saalum gii dëkk bi ñu wax Madinatu salaa dégg naa ci doomi sëñ laxaat mu ne sëñ Abdou Lahad naa ko nee na sëñ Bachiru bi maam jaar a génne àdduna bi mu koy jaale sëñ Tuubaa Pakacaar la jóge fii ci Saloum te booba amagul fanweeri at ñaar fukki at ak juróom-ñett ci lay toll nga xam ne kon jàmbar jàmbar dëgg la gannaaw bi sanc na mm, tiib nu ma ko waxee Touba Mbul Bil Bil Mbàkke ci saalum Touba Kawlax Touba Saloum ca Kaffrine taw feex yi ci njaareem dëkk yoo xam ne ak kër yi mu sanc ci biir ci biir dëkk yi dëkk boo dem Ndakaaru Thiès foo dem rek sañ Bachiru amoon na fa kër lépp kon di wane ak njàmbaaram waaye loolu lépp nag da ko doon def rek ngir li sunu borom santaane ci ñu dundal suuf sëñ Moustapha Abdourahmane loo wax na ci téeréem mboobu ne am na genn ngoon am na genn ngoon ma toog ci Cheikh Mouhamadul Bachir nee na muy jàng alquran ba agsi ci qul man harrama zinata allahi allati axraja li ibaadihi wattayibaati min arrizqi qul hiya lilladina amanu xaalisatun fil xayaati dunia sunu borom di wanaan rek ne xéewal yi ci kaw suuf da da da ko da ko may ngir jaam bi jëfandikoo ko nee na moom ca accès sëñ Basiru dafa mooñ dafa mooñ nako ko bu dul woon ak aaya ji ak li yonent bi wax ne inna allah yuhibbu an bi daf ne sunu dafa bëgg di gis jeexitu xéewalam ci jaamam dafa bëgg ab jaamam di jekk di naat sunu borom di gis jeexitu xéewalam ci moom jaam elu cantam nee na sëñ Bachir na bu dul woon lii day danga ma gis may ku soli sagar ku maanaam wana dëddu soxla dara du soxla dara ne ko mu ne ko kër yi may taxawal ak yi may taxawal ak yépp ak sama kër yi loolu dong laa ci jublu waaye bu dul woon loolu loolu duma ko def ndax yii yëpp ci àdduna xoy-xoy yi lawiti we lawiti we sax laa gën a ñoo ñoo ñoo ñoo ëpp doole ci man ci xoy-xoy àdduna yëpp kon noonu la meloon. bu dee ci wàllu xam-xam nag ni ko sëñ Moxtar Seck waxe léegi sëñ Basiiru liggéey na ci xam-xam bare bari gis nga Cheikh Abou wayam woowu mu wayoon bayitam yooyu di wane sëñ Bachir nu mu dundele xam-xam ahyal Bachiru la dayna mayita diini min baadi ma qaala xaalu diini waa diini nee na sëñ Bachiru la ñu ca xam-xame diine da koo dekkal gannaaw mu ne gannaaw bu xam-xamu diine de ba kenn faaleetu ko ba diine di wooteeg wàllu sëñ Bachir moo wàllu diine dundalalu ko xam-xam yooyu mu nag na ma ci moom bett na ma xaw woon ne ñu ko ci xam-xam te ñoo wax ne naar bi wane ne loolu loolu bett na ko ndax xamutoo ne nit ku mën naa àgg ci xam-xam sëñ Bachir àgg moo tax mu ne maa kuntu axsibu an al ilma taxrusuhu duna al bayaadini fitiyaanu sawaadini mu ne mësuma xalaat mukk ne nit ñu ñuul ñi mën nañoo àgg ci xam-xam pour nit ñu weex ñu àggul loolu gis-gisu naar rek la waaye sëñ Bachir weddi na loolu di ku fonkoon xam-xam ku fonkoon liir dafa fonkoon liir ba àgg ci bi mu demee ba ay bëtam àttanatu ko dafa wut benn naar bu ñu Ahmadu bu Asnat mu koy jàngal téere yi mu bëgg liir mu koy dégg sañ Basiru àgg na foofu ci bëgg xam-xam bu ko defee nag di koon ku bëgg wàllu ëdëb xam-xam xam-xamu ëdëb sëñ Basiru bëggoon na ko lool bëggi way naar yi lool waaye sëñ Moustapha Lo moom nee na am na bis ma ne ko ni nga bëggee way lu tax nag doo way maanaam way yii ci ci ci ni ko naar yi defee sëñ Basiru xamal ko ne ko tontu ko ci ñaari aaya alquran ne ko wa shu'araa yatba'uhumul ghaawuun alam tara annahum fi kulli waadi yahimuun wa annahum yaquluuna maa laa yafaaluun di ŋàññi shu'araa yi jaahili yooyu mu ne loolu moo tax ak wa maa allamnaahu shi'ra wa maa yanbaghi lah wax ne yonent bi moom du du du kon am na bind nay xasida bind na waaye lam bind lépp nag ci diine la jëm lam bind lépp bokk na ca istibsaaru ulil ulil albaabi wal wal i'tibaar fa'tabiru yaa ulil absaar xasida googu nga xam ne ci wirdul maaxuur la ko sëñ Bachiru def nga xam ne mat na juróom nga xam day mel na sax mooy mooy ak dundam li mu bayit xasida wu mooy dundu sëñ Bachiru juróom ñaar fukki at ak ñett dañuy wax juróom ñaar fukki at ñaar waaye jay sachin ba waf sas moom 73 ans la loolu lotta waf sas la sëñ Mat Lamin Jóob Dagana saxal ne ci la génn àdduna fi yebi min saani rabi ay waf sachi kon juróom ñaar fu ñaar ak ñett mooy limu bayit yi xasida googu di limub dunduk Serigne Bachiru nga xam ne ci wertul maaxoos la ko way am na yeneen bayit yu mu defoon ci barabub sëriñ Touba yaa rawdatan sharufat bi cheikhi wasdëhërat arjauha bi jiwaaril aylamil alami di tagg barab bi di ko kañ ngir Serigne Touba mën na ca moom am na yeneen xasida xasida gu neex gum tagge woon ahlu badar ahlu badar jàmbaar yooyu dal dina gaañaa ngi ñoon gaañaa ngi noonu gaañooñ ñoo ñi nga xam ne seen yitte yëpp ak seeni rawante ci sàkku ngërëmul yàlla lañ ko doon lañ ko jeexal xasida gu neex la humu humu wa kafa anna arrijala humu tanafasat fi ridal mawla humumu humu ne shaddul xayazima wabtazu nafaisa ma taxwi almuluku wa afatha nufusuhumu ne laa xarwa anna riyaad al qudsi xasbuhumu inda al maliki wa qad qarrat uyunuhumu nicma alshafiicu lima yahwahu xubbuhumu nicma almalaadu lima yaxshaahu basuhumu xasi gu neex googu sëñ Basiru tàgge na ko ahlu badar am na ganeen xasida goo xam ne da ko bindoon ci jëme ko ci màggalu Tuuba 18 safar tàmbale ko alhamdulillahi hamdan lantihaa alahu ala tafaduli yawmi shukri fi safari am na xasida goo xam ne da koo bindoon ci jamono yi deuxième guerre mondiale di ci ñaan yàlla mu teggi mu teggi ay wi gis ngeen ne sëñ Fall sëñ Modou Moussa defoon na ko ca sëñ Fallu def ko ci ci benn baxaru bi ilay kalpi jaana fakshifil ba'sa wa durra anil xalqi waj'al fi makanihim al bushra sëñ Basiru andi na xasida googu ak ñetti bayit yoo nga xam ne léemaayu kuy tukki la ci wàllu oto bismil muhay bismil muhaymini ñu bari dégg nañ ko bismil muhaymini mu jureeha bi qudratihi ku ne xam na ko nga xam ne léemaayu oto la gu ci baax a baax a baax sëñ Basiru bind na ko ba muy soo ko dëkk boobu ma la waxoon di tiib am na xasida gum gum gum bindoon di ko léemoo dëkk ba di ñaan yàlla baarak li allahumma fil madina wa anzala rahmata wa sakina ak nag téere bu mag bi nga xam ne moom la sëñ Ahmadu war a waxtaane di minanul baaqil qadim minanul baaqil qadim sëñ Basiiru ci ci li mu bind la bokk ci gannaaw sëriñ bu mag bi tuuti rek la ko tàmbali daanaka ci mujjëg dundam ci mujjëg dundam la jeexal téere boobu di meneenul baaqil qadim ci noonu la nekk rek di dund ci xam-xam di dundal xam-xam di liggéey ba ba ba ba ci mujjëg dundam atum 1966 di wax sas ni ma la ko waxee léegi ci la sëñ Basiiru dallu ci boromam sëñ Mat Lamin Jóob Dagana wax na ko fii laylatil itnayni rabbuna qada li البشير ما له ارتضى في يبي من ثاني ربيعي وافسشي في عاشر الساعات إن تفتشي nee na guddig altine guddig altine fukki fan ak ñaar ci weeru rak rakka ji ci la sëñ Bachir dell ci boppam boroomam ci atum 1386 ci gàd ci di ci gàddaay gi di 1966 nee na wa umruhu bi al minan fi l maqbad maqbadil maqbaru daaratil minan nee na ak dundam toll ci juróom ñaar fukki at ak ñaar moom it loolu la saxal nee na fa mu génnee àdduna ci daarul minan fa lañ ko fa lañ ko fa lañ ko denc mu ci pentum daarul minam loolu moom bu ko defee ñu jeexal ci ay meloom ak jikko bu dee ci bindu bindub sëñ Bachirou ni mu meloon ci bind sëñ Moustapha mi ko jege woon lool xamoon ko nee na sëñ Bachirou ku taaru la woon defe naa loolu moom mooy ñaareel juróom nee ku taaru la woon ku bind bu yamoo la amoon amutoon taxawaay ba jéggi dayoo waaye gàtt moom ku ne xam ne defu ko woon nee na bijjaaw bi woon ci sikkim bi nee na moo ëppoon bijjaaw bi woon ci kawaru bopp bi loolu danay am nee danay am noonu la taara woon nee na ku so ku bëggoon col gu weex la col gu weex te sa bicc moom la daa sol fu mu mas toog day jublu xibla day jublu xibla nee na ku weggu la woon nag ku tëy ku ku ku raglu woon maanaa ci ci gis koo xam ne kenn yebu ko ndax ku noppi woon la koo xam ne dafa fiiroon lool ci jikko jikko yu mbañum rus jikko ji asgor wala jikkoo sëñ Basiru dajaa fiiroon lool bëgg ñëpp meloo ko waaye ku dëggu la woon ku mënoon a defar ab diggante la woon rafetal ab diggante moom ak defar ko defe naa ñëpp moom lañ koy bàyyeel fu masa xew tubaab yi sax demoon nañ ba fu ab diggante bu ñàkkaat mas a xew sañ Basiru la ñu yebal gis nga Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum rahimahullah ci mbooloo la ko nettalee moo tax mën naa koo nettali nee na am na woon lu ñu fa doon defar si boo xam ne daf ne man maa daloo woon sama baayu bopp bi sëñ Bachir noonu la ko waxee ci conférence ñëpp di ko dégg kon loolu du lu ñuy nëbbu kon daal sañ Bachir bu ñuy tëj dañ naan jàmbaari xam-xam la woon jàmbaari diine la woon waaye jàmbaari àdduna la woon am na ñaari borom xam-xam yu bind ci moom ak xasida ngoo xam ne mën nañoo tegtaloo ci seen bayit yooyu seen ñaari bayit yooyu njàmbaaru sëñ Bachir ci diine ak xam ak njàmbaaram ci àdduna kenn ki mooy sëñ Habibullah imaam nekkoon ak moom xam ko lool sëñ Bachiru sëñ sëñ Habibu da ko tuddee Bachirul ilmi wa diini sëñ Bachiru di Bachirum xam-xam dafa wax ci marsi yamba naka la ñuy dundeeti kayfal xayaatu naka la ñuy dundee ci ci dund gu nax te li ko naxal mooy ñàkk gi nu ñàkk jàmbaari xam-xam ak diine jii di sëriñ Bachiru kayfal xayaatu ala ayshin yunagisuhu faqdul humaami bashiril ilmi wa diini gis nga sëñ Mat Jaw Paxa moom ca ca way wa moom it ci wàllu àdduna daf ne yéen ñiy war ay fasaki gëléem di tukki dem leen siyaare sëñ Bachiru Bachirum Gusaas di Bachirum Bil loolu ma ngay seere ni doone woon jàmbaar ci dëkk yi ma la wax yaa raakibina itaaqal xayli wal ibili zuuru Bachira Gusaasin bal Bachira Bili sëñ ba Diop waxal loolu la wax kon sañ Basiru déggoon na li sunu boroom wax ne wabtaxi fii ma aataaka allahu daaral axira sa cërub alaxira na nga ci bàyyee xel waaye wala tansa nasibaka min addunia sa cërub adduna yi bu ko fàttee diggante boobu rek la sëñ Basiru nekkoon kon bu ñu wax duruusu na ibar sañ basiiru ak nii mu meloon lañ mën lañ gën a mën a jànge ci moom bokk na ca solos xam-xam ndax téeréem bii mu bind di minanul baaxil xadim nga xam ne mënut ñàkk ci yoonu murit munu fe mënut a ñàkk mooy delluwaay daanaka bi gën a kawe ci yoon wi ni téere bu ñuy wax ashifa meloon ci dunduk yonent bi borom xam yi daanañ wax ne lawla shifa maa urifa mustafa bu dul woon ak téere ab shifa ñu xam duñu xam yonent bi sallallahu taala alayhi wa kon noo ngi noo ngi siyaare bu baax euh, sunu kilifa sëriñ Ishaq moom sëriñ Bachiru agsi na ci jataay bi di ki nga xam ne mooy kilifa gi santaane di santaane jataay bi ngir ñor gu ko liggéeyu sëriñ Bachir mi fi bàyyi ndonol xam-xam li ñor ko ñor lool moo tax mu santaane woon bis bi ngir ngir ni ñu koy waxee rek buñ berndeelee jëmm yi berndeel arwaax yi itam kon maa ngi doon tëj ci bokk na ci liñ mën a jële ci dunduk sëñ Bachiru solo su xam-xam am ndax téere bii di Minanul Baaxil Xadiim bu dul woon xam-xam du ko mën a bind te téere bi ni mu mel ci dunduk Sëriñ Tuubaa mooy la li li li boroom xam-xam yi waxoon ne ash lawla shifa ma urifa al Mustafa ashifa bu Qaadi Iyaad moo ko bind ci dunduk yonente bi am solo lool am na sax ci mm, Ibnul Mualla wax na ko nee law ma lawlaahu maa urifa alxadimu kama shifa lawlaahu maa urifa nabiyul mustafa nee na menenul baaxil xadim bu dul woon ak moom duñ mën a xam Sëñ Tuubaa ni nga xam ne bu dul woon ak ashifa lu bari ci dundu yonent bi dana ñu réer kon te loolu am solo noonu am solo ci dundug Sëñ Tuubaa nga xam ne mënoo koo jàngat am na bis ma dégg ku saf xorom ku naan ma bu bu toogee ci jataay bu ñu waxtaanee Sëñ Tuubaa daanaka la ñuy tudd tuuru sëñ Tuubaa ak la ñuy tudd sëñ Basiiru ñooy tolloo te dara waratul dellu gu ñuy dellu ci mbindam kon nag solo soosu téere boobu am di delluwaay dara taxul mu mën ko ludul xam-xam kon loolu danañ ci mën a xamee solo xam-xam mooy tax nga mën a def lu amee noonu solo bu ko defee itam waaye bokk na ci itam li ñu mën a jànge ci sëñ sëñ bi mooy yitte ju kawe yitte ju kawe dong moo taxoon mu mën a bind téere bii mën a taxawal lii mu taxawal ci kaw suuf ñëpp di ko gis kon nag euh, dénkaane bi ci nun ñëpp nag nun ñëpp yéen ñi teew góor ak jigéen nun ñëpp mooy nu xam ne solos xam-xam la fi sëñ ndono mi la xam-xam la fi bàyyi waaye ndoonool yitte ju kawe la fi sëñ Bachirou bàyyi kon ku ñuy tudd di ko tudd te njaboot gépp ak njabootam la kon ñëpp nañuy bàyyi xel loolu ndoono loolu fi sëñ Bachirou bàyyi am na sëriñ bu bu waxoon lu xoromu daf ne buñ ne doomi gaynday sa baay doomi gaynde ga wala sëtub gaynde ga bu say bët bu boo dut jàmbaar xanaa mën a xonqali bët boobu ba xaw a nuru gaynde tuuti kon nag buñ dut jàmbaar it nañ jéem a xonqali bët maa ngi jégalu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf euh, sëriñ euh, Abo Mbakke ci waxtaan wu am solo woowu nga xam ni wax nga ko di gën a tatagal rek kilifa gi nga xam ni ci ak saytoom ci la ñuy amale jotaay yu am solo yii mu doon kilifa goo xam ni lii yéeneem ak bëgg-bëggam rekk njaboot gi orienté wu ci xam-xam waaye dund ko ak di ko dundal muy sëriñ Isaax Mbàkke ndax fondation maam Jaar di ko jaara soxna nga àddina wóor na yaa nu jox Seyxi Bamba jaarama jaara jaaratullahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaara